إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله bokk jullit yi gannaaw ba ñuy sante suñu boroom mi nga xam ne jaam yi dañoo war a sax di ko sant fu ñu mën a toll ñaan ko mu julli suñu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ak i sahaaba bokk na ci loo xam ne képp kenn ci ñun ko am yéeg-yéeg yéeg na ko ci mbir yoo xam ne nii daje na ci ñun mbir mu jëkk mi mooy la nga xamee ni nii di mbas mi nekk ci àdduna waaye it nekk ci suñu réew suñu boroom am lum ñu ci masaloon delloo ko gannaaw dellisuwaat masal ñu ci leneen delloo ko gannaaw dellisuwaat ñetteelu yoon ba ñuy tuddee troisième vague te bu nekk gën a tar moroomam loolee mbokk képp kuy xalaat war ngaa bàyyiwaat xel lan mooy taxawaayu doomu aadama yi ñaareelu mbir mi ñu ngi dund tey jii bis bu mujj ci weeru juillet di dugg ci la nga xam ne mooy weeru août te ba tey taw boo xam ne dañ koy tuddee taw sibbulum nawet amaguñ ko te la ëpp ci réew mi ña ca jotoon a taw loo ko si néew ñax ma wow na dee na loole itamit nekkaat beneen taxawaay boo xam ne jurit bi war nay laaj lii lan moo ko waral nga la way jëkkal xam yow julit ne àdduna bi yàllaa ko moom la nga xamee ne nii moom nga moomee di nekk sa poos bii da ci def lu la neex àdduna bi yàllaa ko moom loolu moo ci dogal lu ko neex nawet mooma noor moom la épidémie moom la jàmm moom la lépp ci yàlla la jóge kon jaam yi bu ñu toogee suñu boroom dajale leen loo xam ne waxoon na ko te téeréem bu tedd ba yaa quatorze siècle mu ne man de ñi leen fi jiitu woon ba may indee samay ndigal teg ñu jàdd yoon teg naa leen ay feebar teg naa leen ay ñàkk ak i coono bil ba'sa wa darra suñu borom nee na lan laallahum yadarraun ngiree ñu mën a toroxlu delluwaat ci man looloo tax ba waay suñu xutba bii ñu ngi ko tiitaree ci ne ñun ñëpp nañ tuub delluwaat ci yàlla ngir am nawet bu baax ñu ngi noonu loolee suñu borom nee na defoon naa ko ngir doomu aadama yu tuub léegi nag kon dañuy gëm ne yàlla moo wàcce lii yàlla rekk ko mën a teggi mbokk suñu boroom ab nawet wax na ko ci alquran lu ëpp juróom benn fukki aaya ci téeréb yàlla bi mi ngi wax lu jëm ci ab taw lu ëpp juróom benn fukki aaya taw boobee yàlla danañu ci xamal ne moom dong mooy yàlla moom dong moo yor commandement lépp lu nekk ci kaw asamaan ak suuf mu ne xoolal alam tara anna allaha yusji sahaaban summa yuallifu baynahu summa yaj'aluhu rukaama fa tara alwadaqa yaxruju min xilaali wa yunazzilu min alsamaai min jibaalin fiha min barad fa yusiibu bihi man yashaau wa yasrifu an man yashaa yakaadu sanaa barqihi yazhabu bil absaar yuqallibu allahu leyla wannahaar inna fi zalika la ibratan li ulil absaar suñu borom yàlla mu ne xanaa nit ñi gisu leen ni sa borom yàlla day moom mooy dajale niir yi gannaaw ba nga xamee ni nii indi na processus am sant ab jantam mu tàngal océan yi lii de évaporation am suñu borom ma ngi koy tudd ba mu naan wa samaa zaati raji ba muy delloo si ndox ma kon ndox mi ci suuf la jóge woon dem suñu borom yëkkati ko boole ngelaw yi formé ko ay niir borom bi nee na ma dajale ko gannaaw ba tasaare ko ci kaw ci kaw asamaan bi def ko ay daggit def ko muy ay montagne glace te loolu it sunu maam yi laaj leen taw bu ëgg ba ndox bi nekk ci kaw asamaan glace lay doon borom bi gannaaw ba mu ne ma wàcce ko nëm ma neexe sotti ko fu ma neex wëlbati ko fu ma neex su ko neexee sotti ko foo xam ne demal tey Europe demal tey fu bari ci àdduna bi nga déglu ay inondation yoo xam ne ay centaine de morts kër ya mëdd nañu dex ya gëndaloo nañu gannaaw ba mu xañ ko ña ko soob borom bi mu ne xoolal melax ya nga xam ne bu ne ray xaw a yóbbu bët ya xoolal la nga xamee ne nii moo ca aju ca dënnu ya ngeen di dégg borom bi mu ne mi ngi noonu yuqallibu llahu leyla wan nahar yàllaay wëlbati guddi ak bëccëg nekk na ci loolu xel nekk na ci xalaatil ñeel borom xel yi ay yéen borom xel yi xam leen ne yàlla téyenam ndoxam lu tax mu téyam ndoxam yàlla tasaari na ay feebaram lu tax mu tasaari ay feebaram lenn dong mooy tontu la mooy jaam yi jaaruñu fa neex yàlla naka moo ci suñu borom yàlla dig ñu ci lum dige dëgg la walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamai wal ard walakin kazabu fa axasnahum bima kaanu yaksibun borom bi nee na waa dëkk yi di dëkk bu mu mën a doon Sénégal ak Mauritanie ak Japon ci yem waa dëkk bi day bu doon te ne ni ragaloon nañu yàlla jëfe ay ndigalam ma wàccel leen barke bu jóge kaw asamaan ubbil leen barke yi nekk ci biir suuf waaye weddi gañ weddi moo tax ma leen di jàppee la nga xamee ne moom la ñuy def donte na mooy arham arhamar rahimin jàppe wu ñu suñuy bakkaar lu dul ngir ñu dellu ci gannaawam mbokk loolu bokk na ci melokaan bu yàlla gën a insisté ci taw ngir ñu xam ne moom dong mooy yàlla lépp ci loo xam la nekk gannaaw loolu suñu borom mi ngi ñu ci xamal dee dëkki am na xoolal suuf bi ni muy wowe koŋ yàlla wàcc ci taw mu yëngatu génn bépp façon gàncax doomu aadama yi di ca lekk doomu aadama yi di ca naan ay tegtal la yuy wane ni bis bu ñu dee it yàlla danañu dekkal waaye gannaaw ba yàlla mi ngi ñuy won ay xéewalam fal yanzuru l insaanu ila taami e waay doomu aadama yi xool leen seen lekk xoolal ceeb bi ngay lekk xoolal légumes yi ci nekk xoolal ndawal ga ca nekk loolu lépp mbokk da ngay gis ne taw moo am ngiree loolu mën a am borom bi mu ne xool leen ndox mi ngeen di naan ndax yéen yéen a ko wàccee aman maa ko wàccee su ma neexoon def ko mu saf sàppa xorom xanaa yéen du ngeen nekk di sant yàlla na am mbokk sant yàlla tey jii père de famille yu bari amul temps lu dul ni daañu sant waa SDE mi leen jottali ndoxum yàlla ci ay factures yu ñu leen di jox di leen ko fay wax yàlla mi wàcc woon ndox mi nag moom nu ñu koy sante mbokk ni ñuy sante yàlla mooy ñu yëg ne mboole mi xéewal ci yàlla rek la jógee ci xéewal gu ne dañ koo war a delloo fa neex yàlla jalla wa ala lii lañu suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax mbokk yàlla xéewalam ci ndox yéemalewu ko ci wàcceel ñu ko rek ñu koy naan di ca sangoo di ca fóote di ca tabaxe di ca arrosé kenn mënu laa limal xéewal yi nekk ci ndox waaye suñu borom daa boole wàcc ko ba pare dencal ñu ko créyal ñu ay lakk créyal ñu ay déeg créyal ñu ay dex la nga xamee ne nii moo koy def ci kattanam suñu borom mu ne maa wàcce ndax kaw asamaan dencal leen ko wa ma antum lahu bi xaasinin mun leen ko woon a denc tey jii demal jàkk jàng ne pompe ba fa nekk kër yu bëri pompe yaa nga fa demal tey lu bëri ci biir Dakar lan moo leen di alimenté mooy lac de Guiers ndax suñu maam yi ñoo gësoon lac de Guiers la dañoo ñoo fekk yàlla def ko fi. lu bëri ay château d'eau ñoo leen di alimenté château d'eau yooyu kan moo jël ndox mi gas dencal ñu ko ci biir suuf ba boo gasee profondeur léeg-léeg cent mètres léeg-léeg deux cent mètres léeg-léeg mille mètres fekk fa ndox ma fa yàlla denc. loolee mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala ma nga ñu ko defal ci xéewali ba mu ñu wàccee ba taw daal di ñu koy dencal lii lépp dafa yeyoon ci doomu aadama yit delluwaat santaat seen borom delluwaat ci yàlla jalla wa ala mbokk xéewalu taw kenn mënu koo lim la nga xamee ni nii moom mooy jaww ji dafa bari ay déchets toxiques yu dul jeex yuy jóge ci doomu aadama yi ci oto yi ci usines yi ci li ñuy togg ci frigo yi ci lum mën a doon amma taw suñu borom yàlla mu ne yurusulu riyaaha bushran bayna yaday rahmati la nga xamee ne mooy ngelaw loolu di jiitu taw dafay nettoyer la nga xam ne mooy sunu jaww ji taw bi bu wàccee dafay nettoyer la nga xam ne mooy sunu jaww ji épidémie grippe bii ñuy jàmbat épidémie même corona bii ñuy jàmbat bokk na lu ko gën a tasaare mbokk mooy atmosphère bi ñuy dund moom moo pollué moom moo jaxasoo moo sobewoo lan moo ko waral jamono yi taw moo jot ca tawul waaye bu tawoon normal yi taw lu bari ci loolu dafay changer ñàkk a taw day créer stress ci doomu aadama loolee muy gaaw a mer gaaw a jaaxle gaaw a jaxasoo amma gis nga suñu borom fa ida asaaba bihi man yashaa min ibadihi ida hum yastabshirun suñu borom nee na su ma wàccee taw rek nit ñi commencé di bég xatta lu tubaab day wax naan après la pluie le beau temps bu tawee ba pare temps bi day day féex doomu aadama yi kontaanaat loolee mbokk kon ñàkk a taw kenn mënul xam ay musibaam comme la nga xam ne mooy taw kenn mënta am ay xéewalam ay yéen mbokk julit jamono ju yàggul dara nga xam ni ab yéeféer sax moo jiite woon Sénégal dañ doon def bu nawet jotee ñu ne nañu arrêté lépp luy fo lépp luy fo nañ ko arrêté ba ba nawet bi di passé ngiree doomu aadama yi toroxlu ci yàlla ngiree yàlla subhanahu wa taala wàccel ñu ab taw loolee nag mbokk nit ñi fàtte nañu loolu jamonoy nawet ci li ñuy gën a fo tey la film yu bon yi gën a am tey la ndaje yu bon yi gën a am loolee nag mbokk xamal ne loolu dong may indi ab la nga xam ne mooy ñàkk a taw yonent yàlla nuux alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee ci xeetam bokk na lu leen yàlla nattoo lam nattoo xeet yi ci topp ca mooy arrêté ab tawam nuux alayhi salaam ba mu ñëwee lu mu leen wax istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara yursili samaa alaykum midraara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا نوح من جيغلو لين سن بروم كون مو واتل لين تاو مدرارا مبوك دو تاو موي اندي خيول تاو لو بري داي اندي مبوغل واي مدرارا موي وقتو نيك يالا اندي تاو با مينغوك aajo bi xaalit ndakaaru xamul luy nawet waaye laaj leen ñi dëkk ci kaw gi li ñuy tuddee tawu ciibo bokkul ak taw yu wax set li ñuy tuddee taw yu wax set bokkul ak tawu satumbar lu nekk dafa am dose boo xamee ni ni moom la méngool par rapport ak gàncax gi loolu moo tax mu ne dañ leen wàccee taw bi mu nekk lu tegaloo lu organisé wu gannaaw ba génne leen ay dex may leen la nga xam ne mooy ay jardin loolu moo tax ba mbokk jullit amul lenn loo xam ne nii doomu aadama yi war nañ koo xalaat bu nawet bu tardé lu dul tuubaat dellu ci yàlla jalla wa ala tuub googee nag la nga xam ne moo ca jiitu mooy taxaw ci farata yi moytu kabair yi ak luñ mën a doon mbokk sàggane jaamu yàlla day indi maral indi catastrophe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne ay nit heure bu ñu sàgganee génn zakat yàlla wàcce ci ñoom la nga xam ne moom mooy ak maral ak i feebar ak i musiba waaw bu ñu sàggee ne julli nag loolee ñu bàyyi ci xel ca mooy la jiitu ci dellu ci yàlla mooy taxawaat ci arkaan yi jéem koo taxawal tuubaat dellu ci yàlla jalla wa ala waaye gannaaw loolu mbokk julit képp kenn ci ñun bañ a xeeb la nga xam ne moom mooy ak ñaan suñu borom yàlla daa bëgg ñu toroxlu dellu ci moom fa lillahi alhamd la nga xam ne mooy jullig baaw naan loolee ñu bari ci doomu aadama yi xamatuñ ko sax am na mbokk yu ko dekkalaatoon fii ci stade amitié ci année yi ñu passé rek ay trois ans peut-être quatre ans loolee da ngay gis ne moom mooy la waroon mooy organiser wu génn toroxlu góor ak jigéen ñaan yàlla subhanahu wa taala indi taw ca loolee day mbokk julit dañ ko daan def jamono yonent bi yàlla may leen taw dañ ko daan def jamono sahaaba yi yàlla may leen taw omar ibnul xataab maral nañu mu daal di jiite ba muy jiite di ñaan taw ah tegul ci lenn lu dul ñëw taxawlu di jéggulu yàlla di jéggulu yàlla di jéggulu yàlla ba ñaan nga jeex ñu dem yàlla dogal mu taw taw bu jéggi dayoo sahaaba yi na ko waaye Omar ñun dégguñu nga ñaan taw mu ne day ñaan naa ko ñaan ya nga xam ne mooy ubbi buntu asamaan te mooy taw bi dara arrêté wu ko lu dul suñuy bakkaar kon bu ñu tuubee dellu ci yàlla yàlla indi la nga xam ne mooy ab tawam loolee mbokk jullit ñoo xam ni suñu borom yàlla ci yërmandeem day ci loolu dong mooy tax léeg-léeg it muy indi ab taw ngir yërëm baayuma yi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na budul woon ak baayuma yi nekk ci kaw suuf kon doomu aadama yi ak seeni bakkaar yàlla dina téye ab tawam waaye suleymaan alayhi salaam génn na bis ànd ak bani israil ñu dem di ñaan taw yàlla mayoon na ko muy dégg li xorondom yi di wax li pëcc yi di wax suleymaan gis benn xorondom ay benn place bu xorondom yi daje xorondom yaa nga daje jaaxaan jël seeni tànk féetale ko asamaan naan ay yàlla ñun kat say mbindaa fa ni ci la ñuy bokk yàlla wàccal ñu am ndox bu ñu mën a dunde suleymaan ne mbooloo mi bokk leen wax amiin ca ñu nibbi ñu ya ñu yàlla dul delloo seen ñaan ñaanal nañ ñu ca mbokk mi ngi noonu bàyyi ma yi ak ñëpp ñu mën a doon dañoo soxla woon ndox ci di ko ñaan yàlla jalla wa ala ca lenn xañu leen ko nag lu dul la nga xam ne mooy bakkaari doomu aadama yi su ko defee yàlla moo moom ab taw ci loo xam ne nii day nit ñi yàgg nañ ko seede wallahi mu maral lool doomu aadama yi dem di ñaan taw taw dàq leen foofee jamono yonent bi alayhi salaam ba mu génnee di ñaan taw baba avant ñuy ñibbi seen kër taw ba commencé na sotteeku yonent bi alayhi salaam su mi mbubbam ngir taw bi di ko dal mu ne lii xéewal la ko jóge ci yàlla te it bokk na ci xéewalu taw xutba bi munu koo munu munu koo wax waaye bokk na ci feebaru taw amul lenn lu gën a baax ci deru doomu aadama ci muy sangoo la nga xam ne mooy ndoxu taw dara guntoo baax di naan ndoxu taw boo xam ne nii amul ak contact leneen ni ñu noonu mbokk lii da ngay gis ne minbar bii ma taxaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxaw na fi benn kaw kaw ñëw na ko ay yu mu yàlla yónni ñaanal waay àll baa ngi wow koŋ juru gaa ngi dee ñaanal yàlla may ñu taw yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëkkati loxoom yi tedd ya daal di ne ay yàlla yàlla nag ñu wàcceel taw taw boo xam ne taw yërmande la anas ibnu malik nee ne fi ñu toog ci jumaa ji yonent bi di xutba lan toog gis ay ay niir dégg ay dënu keroog ñun bi ñuy nibbi ñun ñépp ci biir taw lañu xuus sallallahu alayhi wa sallam muy taw suba di taw ngoon di taw suba di taw ngoon ba àjjuma ji dellu si waat góor ga daal di dellu si ne ko yu mu yàlla yónni léegi nag ñaanal yàlla arrêté taw bi mënatuñoo génn yoon yi dagg nañu lépp nangam nangam mu yëkkati waat loxoom yu tedd ya allahuma hawalayna wala alayna ay yàlla taw bi yàlla na nga ko sotti ca xuru ya ca bañ koo doon loo xam ne dag ñu ci alage anas nee ne bi ñuy nibbi ñi ngi nibbi ci naaj keroog la taw bi arrêté mbokk muy wañe ne yàlla day dégg ñaan te yàlla moo moom lépp lu nekk ci kaw asamaan ak suuf loolu moo tax ba ñu war a góorgóorlu delluwaat ci yàlla jalla wa ala képp kenn ci ñun tuub ay bakkaaram képp kenn ci ñun jéem a sàmm xool njabootam lan moo ci nekk ci lu neexul yàlla mu jéem loolee au moins kër gi nga xamee ne nii yéen yéen a ko contrôlé ngeen fexe ba kër gi moom doon kërug yàlla ay kër gu jébbalul yàlla loolee ku nekk ci ñun la war ci jamono bu nekk waaye rawatina jamono bi jamono bi nga xam ne mooy jamonoy corona jamono bi nga xam ne mooy jamonoy musiba nañ ci bàyyi xel toroxlu bàyyi ci xel ñaan bàyyi ci xelit la nga xam ne mooy fegu te it ci biir fegu boobee na ma leen ko ñaanoon ajjuma ji passé e waaye maa ngi leen koy continuer waat ñaan mbokk jullit dafa bokk ci li gën a néew li gën a néew ci le médecin yi wax mooy nit ñi nañuy takk ay masque normalement da ngay gis jàkk yu bari tey lii di distanciation sax la ñuy def xëy na la nga xam ne nii moo tax ñu ciy hésité rek nit ñaa ngi dajaloo ci marché yi nit ñaa ngi dajaloo ci kaar yi heure boo ko defee au moins deux ceeru jàkk jëpp da nga leen génne jàkka ji waaye loolu moo waroon waaye même buñ koy deful ngal la waay nañu takk suñuy masque même yow boo gëmul corona am na ki nga dendal daa gëm corona am na kon bul génnee bañ a takk masque ci kanamam mu jàpp ne mën nga koo fitnaal loolee mbokk ñi ngi koy ñaanaat góor ak jigéen nañuy takk seeni masque te booleeg di ñaan yàlla yàlla subhanahu wa taala mooy tegaate corona bokk ak borom kër wala soxna benn lal mu corona taxul nga corona waaye nag taxul nga ne du ma jël samay matukaay suñu borom mu ne xuzu xisrakum jël leen la nga xam ne mooy seeni matukaay lii mbokk la ñuy gis ni ay teggin la yoo xam ne ñi ngi ci woo suñu bopp di ci woo képp koo xam ne nii ab xel nekk na ci yow di ñaan suñu borom jalla wa ala mi nga xamee ne nii day mboolem lu nekk ci ñun suñu bakkaar a tax ca day mérité woon nañ sax lu ëpp li waaye mooy borom yërmaade su ko defee yàlla suñu borom ñi ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaa ñu xam yaa ñu moom ca xam nga ne ne ñoo jaarul fi la neex ba tax nga indi lii yàlla sa njéggal ak sa yërmaane moo ëpp suñuy bakkaar yal na yàlla jéggal ñu yërëm ñu ca wàccewaat ay xéewalam ci ñun yal na yàlla jéggal ñu ca yërëm ñu ca teggal ñu natt yi nga xam ne moom la nekk yàlla yow yaay ki woom la ñun ñooy ñi ñàkk yàlla yal na nga wàcce ci ñun ab taw ca bañ ñoo boole ñu seen yaakaar dagg ci ñoom allahuma rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin allahuma anta alghani wa nahnu alfuqara anzil alayna alghaysa ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انزلنا خيسا مغيثا هنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصرف عنا ونجنا من الكورونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين سبحان سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين